te weeru koor bi bëgguñu ci sëba bëgguñu ci petit teg bëgguñu ci dara bëgg na ñëpp di muuru def lu baax non ci weeru koor de. et alors nga may wax. ah fël-fëlaale tël-tëlaale dañ koy teg nii bàyyi ba koor gi jaar ñu soog a tël-tëlaale. Ah, man man ngay ak yow man man mii xale bi safi bàjjenam ndax mu loo paapaam. waaraatu tey bu dul waaraatu jët na ay waay dégg naa ko. kenn du suñ borom de. géej day sax mondial defante leen ba mu neex de dara du ci génn kër gi kenn neew fi tey. génn moom daal daa bëgg néeg bëgg néeg bëgg balaa maa de ñu naan dañuy bind livre livre bu ñu mës a bind de ku ko lire mooy Fatou nga fa yàlla. waaye yaa ko kaay kaay indi la. ma imam Moustapha bi baax. yàlla daa am lu mu wax si weeru koor yàlla nee na weeru koor mayul sax jëkkër ak jabar muy daarante bay tegu tànk ndogu amul. xaw fan la ñu ci famille bi maman maman xanaa nag looy mën di fen di fen di fen ba weeru koor jot maman premier jour weeru koor nit ñi di ñaan yàlla yàlla jéggal suñuy bàkkaar maman nga bëgg ñoo rey ak ay fen bëgg a tas kër gi. dangaa war a dangaa a def kii kon ba boo léegi dafa rugul ndogu. lii daal nii lañ fi nekkee woon boo leen liggéeyee duñu may waa koñ bi jàmm suba ba tey ngat ngat ay ñoom amul ndogu amul dara ñoom xam naa xëdd sax nii la def nii la xëddee. waaraate kan bi de oustaz bi de am na loolu. nee na kuy fen. ak ku wax lu loo yàlla da lay lakk dugal la biir jaxaan na man de madre pis borom lam bu bi ku ma xamul dégg nga ma sama loxo daa des ba fu ma wéeru laay fi gone gu ma mës a dee nga fa yàlla nga si say put day wóor say làmmiñ wóor say loxo wóor su cir yëppay wóor gis nga yow fenn yi ngay fen laay aawo mën a ci yow laa ko gisee gi daal dégg naa suba da wala di ginnaaw suba te te koor gi 30 jours la te sax <laughs> bind daf may man sama jiit man daal nekk ci dëkk bi ku ma romb ñu nuroo ma jiñ ko kenn man daal mën naa fen dëgg dëgg damaa